asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Salam Vision ah, xam naa ne nag moom ngeen seen émission Sam Ngoumba mais dañoo nekkoon suñu roq rek doon liggéey tey li nga xam si nag tey nga xam te ne alxamis eh, ma jëli woon ay ndaanaan yoo xam ne nii nekk fii ba diwaanu Géejawaay diggante Géejawaay ak Pikine nga xam si ne ay xale yi am jël talent la nga xam si seen émission sàmm mba soo xoola da ngay ree ba sonn nee naa ne nag bii nag ah, day dañuy ñëw dellu ngéwal dellu baarambay dellu ay ay ay yu yàgg yëpp hmm. ndaxte sama gan dafa am lu ñuy waajal nga xam si ni euh, fan yi néew loolu ba ñuy dugg si koor yi danañ def lu rëy gannaaw ba indee ñu ngi seen rokk doon liggéey ah, may dalal sama ndaanaan yi di leen wax nag dal leen jàmm fii si Salam Vision bu may dalal mooy papa def dañuy tàggu dañuy tàggu mbaar euh, papa papa lii mooy lii mooy nuyoo si tëgg. waaw lii mooy nuyoo si tëgg. waaw yaa ngi ànd ak si sa wet. waaw maa ngi ànd ak Moussa sama doom day sama lépp sama nit tuum. yaa ngi si aar bi. Euh, mais mais mais yéen loolu la ñu waaw ñu ngi waaj le 9 avril. le 9 avril dina métti dina yàgg dëgg neexul. ndax faamu. Ah, waaw ñu ànd ak suñu nit yëpp. gars yi nekk si de si de Barab waa Géejawaay waa Pikine. suñu mbokk yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk aar bi. bàyyi suñu faalu yàgg nañ di liggéey nag xam nga corona bi couvre-feu mais ñu ngi waaj lu metti waaw le neuf dina métti dina yàgg bàyyi ku ko fekkewul nag di nga daal di lépp waaw. bu la gën a yàqu mais yéen est-ce que ngeen a dem. waaw loolu moom dama ci sawar wax. parce que ku ànd ak Lamine dégg naa Lamine day sàcc baax la wax leen nga koy dégg. ñi mën a tëgg dëgg ñu ngi seen ruux gars yi ñi si des ñi ñëpp dañuy tëggantu. mais mais mais yow géwél man dëgg loolu boo ma ko waxee dama parce que aar bi dañ ne ku nekk bay sa waar hmm. man du ma doomu géwél doomu laa mais ñi may àndal ñëpp ay géwél lañ. mais mën nga fecc. man fecc kat laa damay fecc damay tëgg. damay fecc damay si beneen côté Moussa maa ngi lay waaw ah, maa ngi fay Pape Sow. Moussa fan nga jàngee tëgg yow. man ah maa ngi jàngee tëgg Thiès. mooy dëgg ngeen fi de yéen daal da ngeen di mën a tëgg mën a xaw mën a mbalax tuuti rek ngeen di wuti seen sabar. mais tamit àdduna lépp fit la boo amul fit doo def dara. Hmm, Thiès kër kër nga nekkoon. maa ngi nekkoon sama kër moom El Hadj Papa ñu ko gën koo xam ci Baye Xaali. Hmm, Baye Xaali nag defar ko du moto wala vélo la doon defar foofu. non sama maam dafa liggéey bu mag nag Baye Xaali ñeen léegi daal sama géwél ma sànni voyage ma ñëw moo leen di agressé daan leen ko leen agressé daan na. non sama maam bu géwélu ma dem ba dem sama maam dafa di géwélu VIP xam nga dañoo ne géwélu coomo coomo daa am géwél ak géwél dafa am. sama maam da di géwélu bete. xoolal caméra bi xoolal caméra bi. waaw sama maam dafa di géwélu bete bete bàyyi xaalis ña ñoo koy ñaanal yàlla suuf sedd ci kawam. Ah, fàggu na moom moom dem na bu yàgg. waaw waaw ndeysaan ah léegi yéen lan ngeen di waajal lan lan ngeen di waajal yéen mooy li ngeen di déglu fii de. Eh, ma ne la le neuf dina métti dina yàgg. wala ah. déggoo li ma la ah. le neuf. Ah. dafa nekk loo xam ne anniversaire lu groupe bi la. ñun suñu groupe. Mm-hmm. ñu waa Osé. Mm-hmm. dafa nekk suñu anniversaire te ni ku nekk sa bis nga am sa anif mu dellu si loolu nga am. Mm-hmm. te suñu anniversaire bi moom lañ am. ñu ngi siy woo ñëpp. nañ ñu ngi siy woo ñëpp. waaw Bougane Gueye Dany ñëpp la ñuy woo ñëpp ñëw jàpp si bis bi dëgg neexul. mais dafa mel ne sa ambition mi ngi si biir rek. Salam Vision da ciy ñëw jàpp si affaire bi tax lii bu ko defee fii Salam Vision si la parce que fii la bokk dëgg neexul. Ah, Salam Vision ñu ngi lay woo. nee naa la Salam Vision kenn moom. waaw nee naa leen site internet ñëpp ñun ñëpp dañuy xaar kenn du Salam Vision. dëgg neexul waaye waaye fii la ah nekk nii fan yii xam nga ñu ngi waajal dugg si koor yi. Mhm. te Salam Vision xam nga sàmm boobu mi ngi waajal ay escarts yoo xamante ne nii bis bu ko dóoree fii ànd ak Omar ak sama gars yi ñoom Samba ak. Euh, Euh, gars yi ñi nga xam si ni ñoo may ñoo ñoo may daal nee naa leen fi mu nekk nii li ma war a dóor fi ma ko dóoree fii da ngeen mais mais man dafa am benn way bu ma fentoon am benn way bu ma fentoon comme que Salam Vision dana départ ñëw ba fi ngeen di répété mu ñëw xool si de léegi euh, bon euh, yéen bonne façon bu gën a tëgg ngeen tëgg ngeen wàccee ma ko suuf rek mu nooy bañ a foor yaa ngi dégg moo moo war ne gars yi man doomu loobe ndax damaa di sëtu sëtu Mamadou Ndatte Samba ay sel Kumba Faas xam ngeen ne man du ma géwél mais doomu loobe laa te dama ni loobe yett piir nag. léegi neexul léegi lan la leen moom ma la xam tuuti nañu waxtaan ko. waaw waaw li dong la leen mën a nee leen yeneen seen internet yéen da ngeen di xaar bu mu Salam Vision doo ko booy jëm sa kaw affectons nos sàmm mais li si des li nëpp ngeen xaar moo tax ah, gis ngeen ma fi tëggal léegi ah damaa bëgg ngeen may dàqal par benn galam moo xam ne ki ko fi indi ak fa mu dëkk moo xam ne man sàmm ma soo man maa leen koy wax. waaw ñu ngi nuyuwaale suñu baay jooju Thioune Samb. waaw au passage dëgg neexul. ba papa balaa kee yor tool ma damaa bëgg nga may tëggal da nga may jàpp par benn bànq boo ma jàppalee rek taxaw ma lépp diw moo indi tëgg. tuut dëgg neexul. sosoo fii ba Bamako. dëgg neexul Bamako la la la jógee. 96 la fi ñëw. maa ko njëkk a jox Thion mu tëgg. maa ko njëkk a jox Talmbat mu tëgg. maa ko njëkk a jox Njaaj mu tëgg tëgg Baye Fall. ah comme dama dina mbir mi ku ko tëgg mboxeexu euh, la tuddoon mboxeexu la tuddoon waaw ah, borom Thion yow damal moom moo tax li nga li yaaya a lañ ko daan tëggal depuis 1976 nañ ko daan tëggal yaaya jàmbe ko lobay topp ko euh, ñeeñey topp ko muy a ko daan topp daan daan mu dem xeex yaaya jàmbe moom nga xam si ni Gàmbi da kaa dàq si dëkk moom moom bokkatul fenn nee naa leen fii la mburu mi di xoyom xoyom mais fii la mburu mi yéen ngeen di kan moo leen leen gënaa moo nekk seen wet yéen ñun Lamine Gueye moo nekk suñu wet dëgg neexul suñu mag yu baax jooju kon nga xam ne dañoo jege dëgg. mais Lamine baal wuyu ma caméraman del ma wax ak Lamine Lamine baal baal sàcc bàq jàmbur yi Lamine baal li nga mel Lamine ba di waaja sa anniversaire jarul lii Lamine yàq si ñàng am yéen yoo xam si nii du yoon bàyyi leen ngeen def. non booy bàyyi leen di sàcc bàq. foofu dama la siy tontu dëgg neexul loolu dama la siy tontu parce que sàcc naa la wax leen de day répété bay bëgg a dee gars yi di sàcc bàqam dëgg neexul day répété bay bëgg a dee gars yi di sàcc ay bàqam billaa wala ay tàllaay dafa mën a tëgg piir te Lamine artiste bu mag la yàlla suñu borom moo ko ko defal xale bu ndaw la bi ngi doog a door dëgg neexul former ay jeunes talent waaw xale yoo xam ne fi ñu ne der nga ne lii laa la. dëgg neexul Lamine garaan yoo fa nekkoon Lamine bëgg a dem nekk garaan yoo fa ñëw fii si benn quartier bu naan si la barak fekk fa ay orof ak ñëpp la tëggaloo ñëpp fi mu nekk nii booy si jox cóol. wala ndeer wala mëg-mëg nga yaakaar ni géwél bu mag la te fekk boobu xoolal ay njaay la sant ay bu bu olof la. nga koy dégg de. Hmm? loolu li gën a jafe nga fekk beneen ku ku nekk si beneen xeet nga jàngal mu mën tëgg loolu dafa loolu lu garaaw noonu. Hmm. doomu géwél rek a mën a dégg yenn bàq yi doomu géwél a mën a tëgg yenn bàq yi nga jàpp beneen xeet dugal ko si tëgg si aar bi jàngal ko tëgg ba kooku fu ne der ñëpp ñëw tiim ko ay loxo. loolu yomb loolu tëggkat bu mag moo ko mën a def. ah neexul léegi léegi da ngeen maa bëgg ma ngeen ñamal ma fii rek ngeen wàccee lu tuuti sabar yi ndax sabar yi ah, gars yi ñu may woo wax su suuf sabar yi dafa foor mais ma koy wàccee rek ñu waxtaanee ko léegi dem leen kuy laal ma demba fekk na fa ngeen nekk xaw ma suba la xaw ma mais den seen groupe bi lii am na solo lool léegi dama ko dama ko doon ubbee tey sama émission xam ngeen ko doon naa def émission man tey naa ko ubbee ah ànd seeg sama gars a nga xam si ñoom ñu ngi waajal programme bi la kañ la. le avril. le avril euh, programme bi ñu ko tuddee bëri na dëgg neexul suñu suñu papa Ahmed Aïdara ñu ngi siy woo. Mhm. ñu ngi siy woo Omar Sow. Omar Sow. Ziwo mère Yacine Diagne. suñu yaay jooju. waaw jaajëf pont bi. suñu Touba suñu yaay ñu ngi koy woo. lu di si woo ñoom Loota Diagne. Loota Diagne. di si woo suñu mag yi baax yi. Loota Diagne day yàq da leen di si woo Baye Balla. baay baal billaahi suñu nit suñu mag suñu xarit suñu lépp. ndeysaan waaw billaahi. baay baal la temps la si. waaw dëgg neexul. ñun ñëpp ñu ngi leen di woo. ndeysaan naan leen seen doom seen i waaw seeni i ñu ngi waajal lu rëy lu mag ak sëñ Touba. le 9 dina métti dina yàgg dëgg neexul. le 9 avril. avec fan avec Salam Vision. avec Salam Vision rek. Uh-huh. yéen dina métti dina yàgg dëgg neexul. waaw kon gars yi yéen a ko déggandoo noonu seen émission Saamu Dugal woon tey nag ñoo dem ay jeunes talent yi nga xamante ni ñu ngi nekk fi diggante Pikine ak Guédiawaye mais boo leen xool Guédiawaye dañ gën a bokk ak Pikine moo xam se ni ay tëggkat sabar di naanaan la a nga loolu sànq seen biir wax nee na ñoom mbàq bu ñu génnee kay jël ko yàlla bàyyi seen mbàq yi yéen yi jël nag bàyyi leen dégg dem kéré seen yëf yi. asalaamaaleykum gan ñëw na ngeen ko dara sëriñ bi laaj ci nopp nopp dafa dina àndandoo ngeen le 9 avril le 9 avril. bi nga xam si ne day toog ba nga xam naa bu ñu tukkee si loolu rek dañuy daal di dugg si koor gi nag. Mhm. waaw naan ñaan yàlla nag yàlla yóbbu ñu sa jàmm ñu woor ak jàmm a ñu wax yàlla na Sénégal yàlla fi jàmm. amiin yàlla def jàmm si àdduna bi nga xam si ni euh, ñëpp kuy jullit ak ku dul jullit maa ngi leen di ñaanal jàmm Salam Vision di leen ko ñaanal bañ ñu ko dendee salaam kon boog ñëpp lu yéene jàmm salaam. di leen ñaanal gudd fan ak wér bi yaram nag ah damay delloo nag fu euh, muy ngumba ngeew di sant ña fa nekk sant waa Sida Baraaj nekk fi laa màggee fi laa yaroo fi di santaat euh, sama xarit yi euh, nga xam ñoom laa foo looloo la ak nag fan looloo du kii de da ngeen a a gudd fan te da ngeen a ànd ak di sant papa di sant. Moussa mais nga xam si ne moom moo yor cóol bi sama nga xam si ne ay naanaan lañ di wax ne ngeen waaj lu rëy ngeen waaj loo xamante ni Nafissatou Fall maa ngi la si woo ngeen jàppale xale yi jàppale leen xale yi Nafissatou Fall jàppale leen xale yi. yéen a ngi dégg yéen a war ñu dem yaa ngi dégg di santaat sama sëriñ Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima yàlla na yàlla naa du ma def émission tudd du ma la si bu boobaa yàlla naa yàlla naa soj boobaa yàlla naa soj di santaan ñëpp di gërëmaat ah, tonton Sam si nga xam si mooy suñu mooy mooy directeur bi di ko ñaanal gudd fan ak wér. ñu ngi ko si bi. dëgg neexul incha allah di nga leen gis incha allah rabi di nga leen gis di nga gis nuyu sama cadre bi sama cameraman bi yàlla yàlla defal jàmm Ousmane nga xam si ni moom dégg naa fan yii lay waaye takk jabar di leen wax nag asalaamaaleykum ba beneen yoon ba beneen yoon Ousmane. Bienvenue sur Salam Vision.